Cheikh Mor Diop na ndax man dama xam ñaata at nga am ñaata at nga am yow dégg naa yàgg bàyyi affaire yéen a maase nga bal yow Cheikh Mor ñaata at nga am nag wax dëgg yàlla lan sa ah fukki at ak ñent Cheikh Modou ma xam nga ni néew na mbedd mu ñu jaar ci Touba ñu ne la xam nga fii nga ne xaw ma ko maa xam nga ni néew na Touba mbedd mu ñu jaar xam nga ko ah loolu pour lan la defal ni balaa nga yale sama nopp man nga mel ne koy war na seen waa koñ Cheikh Modou defal ni ah ñebe bi doy na nag bul dagg sa tuñ depuis kagn ni commencé la wowe may xew ci kagn bi ñaata at. Cheikh mod ndax man na ma xam ñaata at la ñu lay wax may xew ci kagn bi. yagna yagna lo eh, wara lu waral turu mbay xew bi. asuman asuman asum Mbaye Sall léegi xam nga lu ñuy def dama bëgg nga wayal ma benn son pap juuf ma jox la kaas soow bi waaw. ma si leen lépp yow la. yow yaay sama Diouf dinaa la rey rey seen waa kër. bébé baas ñuus la ba nga tëdd àggaleel. déedéet boo ko àggaloo doo naan soow. non du la ñuus sax léegi baax na bébé baas baal naa la. aywa ak waxal rek ah aywa insistel foofu nga ni lan yaa ko moom Cheikh Modou mën na maa xam ko moom xol be sa xol bi ku ko moom aja àggaleel aja xol bi yaa ko moom jox naa la ko lu ci tegu nga ni ma koy dem ndax ma Ndiaye loo léegi mën nga toog kër ga. fu may toog. kër ga léegi. man maa ñëw. yii yow foo jëm yow. ci place bi. sëñ bi da bëgg ak man di gor samay tànk. lu ci daal di. wayal ma Waly Seck suma Waly Seck. sama Waly Seck doom ko wayal. xaali mbay léegi mën nga kër ga. ah maa ñëw d'accord ana xaali. xaali mbay mooy kan ah, man ngaa toog baax na d'accord. bu ko defee xam nga lu ma bëgg dama bëgg uh, nga taril ma qul yaa ayyuhal mhm. mhm. mu ne. wala antum aabiduuna. Hmm. maa wala antum aabiduuna. ma abudu waaw hmm. wi lan kum yow alquran yalla ji ngay jaxase nak ma abudu ih, wala ana ah abudu, ah ma habatum la topp da nga wala antum habiduna wala antum habiduna ma ma axabudu encore waaw tàggaleen ii jeex na saar wi jeex na ba pare waxal ñetti baar yu mujjee rek nee làkkum diinukum wala diin laa wax hmm. Hmm. léegi dangaa bëgg dangaa mokkal xameet tajwid la da nga koy tajwid nag daan bismillahi rahmani rahim comme daare abdou rek daare sëñ daam bu ñuy def conférence ndeysaan gone yee solu ba mel ne biram baf la ñu àndandoo groupe boo di mel ne saami mango ñoo toog ca baas ba sol seen mbaxana yooyu di mel ne ay calaw leet naan بسم الله الرحمن الرحيم لولا بدنوق أو بسم الله الرحمن الرحيم أنا كمان أسير الله دخم لنا وراها كجن أجا بسم اسم ربك الأحلى أي غوري الذي قلها فسواه والذي قدر فهداه أي غوري والذي أعرج المرحب ah comme que demee na noonu te yow ak yamati Fall mbay yena a bokk dëkk ci koñ bi muy géwalu koñ bi dama bëgg nga taasul ma Cheikh Modou yop taasu rek taasu ya comme que yak nga dem ay wacce koñ bi lu fi xew ñew nga taasul ma rek léegi waxal li nga man Cheikh Cheikh waxal li nga man ah mënuma dara nga ban ok del ngam di wax sa soxla quoi nga na di mel na ndoxum tuubaan Cheikh Mour bàyyi li ngay def sa manière yi ngay bàyyi ndax man damaa xam kañ nga commencé dawal sa rek kan mulai la ci dugal sebab, ci dugal